قد موت أشرفنا سيادة من له في الفضل غايات دممت جودا وعدلا كان ديدنه يسرا إذا عصرت في الدهر حاجاته شممت تربك يا غوثي ويا فرجي ويا دوائي إذا تغني الخطيات mbokki taalibe yi mbokki jullit yi maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi ak ziyaar bi suñu kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo ñëw teral jataay bi fekke ko teewe ko ñuy jégalu bu baax itam kilifa yi ak boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo nekk ci jataay bi waxtaan wi daayira bi nga xam ne moo koy amal ñu daayiratu muqaddamatul xidma muqaddimatul xidma di sangub daayira yi ndax bërëb bi muy liggéeyal mooy sangub bërëb yépp jëmm ji nga xam ne fi leen di liggéey fi moom mooy sangub yi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi yépp moo tax ñuy sangub daayira yi maa ngi leen di sant di leen ziyaara di leen ndokkeel jëf ju kawe ji nga xam ne moom la amal fii ci bërëb bi di ci liggéeyal sëriñ bi ci wet gi nga xam ne dara gën a koo rëy ci liggéeyal sëriñ Touba muy wetu xam-xam sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu wa ardaahu tam ne wajal binaiya binaa ilmi wa amalin bi sunnatin wa xilmi lim doon tabax di ko liggéey ak jihaadam jëpp lenn ngànnaay la ci doon jëfandikoo muy ngànnaayu xam-xam képp koo xam ne nag yaa ngi yor ngànnaay loolee amul sikk ne yaa ngi fi wetu Sëñ Tuubaa ànd ak moom ci jihaadam ju mag joojee nga xam ne moom la def di ko liggéeyale sangam ba Muhammad sallallahu alayhi wa woo giñ ma woo fii itam ma leeral ni dayira bi dañuy am yaakaar rek ak yéene ju rafet waaye man lott naa ci wax fii benn baat boo xam dana jariñ kenn ci mbooloo fi togg dafa fekk rek ni ab murit boo xam ne day woote cofeel bu rëy ci Sëñ Tuubaa soo ko woowee ci bërëb bii nga xam ne mooy xadra bi gën a kawe nekk fi wetu sëñ bi doonte mënut la nga koy doy itam foofu mu ngir ne bërëb bi la sawar waaye ñëw lu ngir indi fi lenn lenn xam-xam di dolli itam suñu fetli suñu cofeel ak suñu taalibe ak suñu pas-pas ci borom bërëb bi nga xam ne Cheikh Abdallah Alami لم وخ تيمو لم الف الا ميتا به حسد أحياء اهل المقابر موم رك موي كو خامني غانا جينا وا برصف وا ابن سبت ما سي ني وا برصف غير غان غوغي لن غانا سي اك في مو بايو di sunu sang bi nga xam ne lépp lu baax rek digal na la lépp lu si war a moytu itam moytu loo na la ko wax na ci benn ci dénkaane yi mu doon dénkaane wax ne yaa ayyuhal ixwaanu haakum nafan bi gayri durrin jalaban wa dafaa yéen sama mbokk yi te mooy nun murit yépp ñoom la doon wax ci ay mbokkam jàpp leen i mbokkam yéen sama mbokk yi maa ngi leen di jox njariñ loo xam ne daray lor nekku ci di leen ñoddil waxtu wu ne njariñ di leen jañal mboolem luy ak lor ak lu bon ak lu ay loolu rek lañu doon digal loolu lañu doon fàggul da ko doon defit ci cofeel bu mat sëkk ak bëgg gum nu bëgg moo taxoon muy dénk dénk dénkaane yooyee laa wax ne haakum nasihatan min al muhibbi wajjahaha lakum li ajli al hubbi laabiri yi ma leen di laabiri yéen murid yi cofeel bu ma leen sopp moo tax ma leen koy lëkkale moo tax ndigal Sëñ Tuubaa yi nu war cee bàyyi xel di ko jàngante di ko jàngalante boobu di ko jàngaat di ko nafar nit ki nga xam ne noonu la ko waa daayira yi defee tey jii ñu war a jël ab bunt ci benn téere ci téere bi muy masaalikul jinaan war koo nafar ci anam gëm gën a gàtt insha allah yal na ko yàlla fayal bunt bii ñu war a waxtaane nag mooy faslun fi radaili dañ ma waxoon ne naa ko waxtaane muy xeeti caay-caay ak xeeti sikk ak xeeti jàngoro yi nga xam ne ñooy nekk ci jaam bi nekk ci murit bi tee dox tee koo àgg xeeti yi nga xam ne ñooy muur xolam ba du mën a gis leeru suñu borom tabaraka wa taala jàngoro yooyu Serigne Touba radiyallahu anhu wa wax nañu ni balaa kenn àgg ci gis kumpa yi ak yàlla di jëflanteeg moom di doxale digganteeg moom ay secret ak i mbir bala nga àgg ci loolu faw sa xol da ko raxas ba mu set ci xeeti jàngoro yi ñuy wax waxtaan moom lay wax naan أما إذا شغفت بالغيوب فطهر القلب من العيوب إذ العيوب للغيوب دافعة كذا الخطايا من مزايا مانعة soo bëggee bokk ci nit yàlla yi nga xam ne yàlla day jëflanteeg ñoom di séq ak ñoom ay secret ak mbir yu nëbb yu fàdd yu yu ump mbooleem may ñoom nee na nga raxas sa xol ci mboolem sikk yi nga xam ne moom la ñuy waaj waxtaane tey jii dalaa wax ne itam nanga raxas sa biir waaye na nga raxas sa biti itam wa tahiril qalba wa tahiril jasad min daranil najasi wa min daanil xasan dana àgg sax ci wax ne soo bëggee mucc ci àdduna ak ci alaaxira na nga fexe ba waxuma la nga tàqalikoo sikk yi ñuy waaj waxtaane waye bul ci yam ñako amé sax na nga len moytu bul ànd ak ñom moy lim wax de way in aratta an takuna naajiyan yowma alqiyamati wa fawzan hawiya fasallim sallimi alqalba wa faariqi albidaa wa lazim laazimi sunnata wabta wabtagi alwara wala tu wala tufaariqan dawi alfadaili wala sahiban dawil razaili moy sikki ñu waji waxtan ñi ko am bul ànd ak ñom bul nek ak ñom ci lenn ndax bu yagge bo de am na ñom bu yagge ñu wal la kon sik yoyu señ bi dinu moytuloo lu wara xam lu wara xam la lu ñu wara xamé la itam ba man ko safara fexa ba teqali ko mom xam ngeen ne xol bala ma dugg ci waxtaan deug deug ma jiital rek ne xol mooy li dox diggante jëmmi doomu aadama ji ak ruuxam am wet bu féete ak ga ak wet goo xam dafa féete ak jëmm ji nii ruux gi ak leer ya su fekkee ñoo ëpp doole ba man ba fees dell xol bi boobaa nit ki itam day nekk nit ku baax ko jag ku tàggalikoo ak mboolem sikk yépp waaye su fekkee bakkanam ak jëmmam ak bànneexi bakkanam da koo man loolu mën naa dem ba fay leer gi nekk ci xol ba ak ga nekk ci ruux ba yépp ba yàq ruuxam ba mu nekk nit nit ku texee yàlla yàlla musal ci lu mel noonu bu gisee ci alquran sunu borom tabaraka wa taala xeeti mbaax yépp day wax ne ci xol day daje lu mel ni ngëm yàlla dafa ne xabbaba ilaykum al imaana wa zayyanahu fi qulubikum lu mel ne ak bëggante ak ànd ak jàppante wa allafa bayna qulubikum la ca wax lu mel ne dalu dalu xol tuma nii na wax ne ala bi dikrillahi tatma innul qulub lu mel ne tamxiis te mooy setal ak fóot xol bi ba mu set wecc ba dara lu ca nekk lu ca bokkul lu lu bokkut ak li yàlla bëgg wala yu maxisa maa fi qulubikum ak mucc itam gis nga dafa wax ne ci xol lay ne is rabbahu bi qalbin salim maanaam xol bu mucc ci mbooleem sikki ak ay yépp li ma bëgg a leeral foofu rek mooy mbooleem yu baax yi ba ci ak ragal yàlla dalika wa man yuadim shaaira allahi fa innaha min taqwa alqulub mbooleem yu baax yépp xeeti leer yépp ci xol lay daje mbooleem sikki yépp itam boo gisee ci xol lay ne du mel ne ak mbañeel تخل لي بوف ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا بمن اجنغ اجات يوم فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه موي دم مانو ناتي واخ يو بري بري بري باي داي اندي مثال رك سي خول سي ني بو دم لو باخ دي نه سي فوج بون كو فوتي واي بون كو فوتو نيت باي كو مو تاك مبو لو بون دا فاي دك موتاخ سيغ بي wax nu ne xol boobu nag moo mat a defar mat ko fóot xeeti sikk yi nga xam ne moom la sëñ bi wax ci buntu boobu muy albaabu thani ci masalikul janaan jinaan dafa boole ñaari xeeti sikk mooy arradail alzahira mu xeeti sikk yi nga xam ne dafa fés te cër yi di ko jëf ak yeneen xeeti sikk ak jàngoro yi nga xam ne ci xol lay ne yu njëkk yi duma ci taxaw ndax xëy na waxtaane nañ ko lu bare bari fii yaakaar naa ak ci bërëb yu bare bari mooy sikk yu fes yi nga xam ne moom la cër yi jëf yooyu dama ci jaar-jaar bu rek bañ cee taxaw ndax yàgg nañ ko dégg nañ ko waxtaane ya ca des nag muy nekk ci xol yooyu lay gën a taxaw indi benn bu ci ne la ca sëñ ba wax ak na ko sëñ ba leerale ak saafara sa nga xam ne moom la wax ne moo koy saafara ak la koy dindi ci xol yu njëkk yi mooy yi nga xam ne ñoo fees te cër yi di ko jëf muy xeeti sikk ak xeeti jàngoro ak xeeti gàkk yoo xam ne cër yee koy jëf yooyu yu bare bare bare la sëñ bi yem ci njëkk a lim mooy yi aw lam yi di def li mu wax ne ka xiibatin namimatin wa kadibi wa xaalifi lyamini wa taassubi wa zuuri wa alfaxsha wa ma la yaani min qawlin aw fialin wa ma laa yuxni yi làmmiñ di def ci xeete caay-caay yooyu muy rasail yi ak xeete sikk yooyu ak jàngoro yooyu ñuy wax ba ci jëkk mooy jëw jëw sikk la soo xam ni su mata teqalikoon sëriñ bi wax na ci lu bare bare bari di ci leeral wax yi yonente ba alayhi salaatu wasalaam ci jawharu nafis sëñ ba wax na ca ni soxna Aïcha radiallahu anha doonoon kenn ci waa kër yonente bi alayhi salaatu wasalaam bis nit da ko mas mu wax ne kedde bu mam sol dafa gudd yonente bi ne ko wàccul ba mu wàccoo nee na aw dog génn ci gémmiñam dogu yàpp yonent sëñ bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam xamal ko ne ko dog yi de bu jàlloon du la mën a tee dugg sawar a ëllëg loolu kon te loolu doon sax jëw bu ñu wax ci noonu muy mbubb ma rek la wax na mel jëw kon mooy tudd nit wala nga tudd dara ci moom wala aw melo ci moom boo xam ni neexu ko bu ko déggoon du ko neex te muy dëgg boole ci loolu la ñuy tudd jëw loolu nag loo ci mën a def ak lu mën a doon rek ci wàllu boobu sikk la doon soo xam ne alxasanul basri danaa wax ni jëw ki koy def mi ngi mel ne ku jël mboolem li baax li mu am def ko ci ab palaat di jël di ko séddale nit li baaxoon ngay jël di ko sànni nit ñi dina ko séddale moo tax jëw kon boo koy def yaa ngi tasaare sa lu baax di ko sànni nit ñi dina ko séddale mu teg ca rambaaj rambaaj mooy tuxal ay wax ci anamuk yàq lu bon la ci bakkaar yu mag yi la bokk ak wax lu safaanu dëkk ak giñ giñ loo xam ne yow li ngay giñ xam nga ne dara amu ca loolu ba tey ci jàngoro yooyu la bokk nekk noonu parparloo ci aw xeet wala ci askan wala ci daray àdduna loolu ba tey ci xeeti sikk yooyu sëñ bi neen ci la bokk ak ngiñ walla wax walla seere loo xam ne dara du ca dëgg loolu ba tey ci jàngoro yooyu la bokk ak jëpp wax ju ñaaw walla jëf ju ñaaw wala nga dox jëm ci lu xaraam wala nga xool lu xaraam wala nga bind lu lu bon wala lu ñaaw wala nga diglu ko wala nga jëfandikoo ko ci anam gu mën di doon rek yooyu yëpp sikk la jàngoro la yoo xam ni murit bi dafa war a teqali ko moom ak jullit ñëpp sax dañoo war a taxaw ci saafara ak dindi jàngoro yooyu ci seen bopp mu teg ca wa dami muslimin wa dami mithli muslimin aw maalihi aw mithlihi kadaka hijraanun lahu li geyri xaqi sharci faxdar kullahu rey ab jullit wala jël alalam wala sax bu ab jullit di ab yéefar waaye yéefar la boo xam ne moom jullit yi am nañ jàmm moom it nga jël alalam wala nga rey ko wala nga tooñ ko yooyu yëpp ci xeeti bakkaar yooyu la bokk ci xeeti sikk yooyu la bokk ci jàngoro yooyu la bokk moo tax sëñ bi ne faxdar kullahu yooyu yëpp da ko war a moytu da ko war a xeex sa xeex ak bopp ba ba génne ko ci sa bopp ba mucc ca ne noonu itam tong ab jullit mooy mere ko wala noonu ak moom te ci loo xam ni yoon tegewul ci yoon tegewul ci sharia nekk noonu xeeb ab jullit wala doy dal ko wala di maslaa ak kenn ci loo xam ne day yóbbu sa diine wala nga wor ab jullit wala fexeel ko wala di dàggasanteeg moom wala lenn rek lu luy luy yàq wala benn jëflante boo xam ne du bu baax bu tegu ci ni ko yàlla bëgg la yooyu yépp suñ bi dafa wax ne ay xeeti bàkkaar la yoo xam ne yu fës la te ay cër moo koy jëf mooy razailu zahira bu dee yi ci des nag nga xam ne moom laa bëgg ñu gën cee taxaw ci waxtaan te mooy yi nga xam ne ci biir la ne xam nga suñu borom dafa wax ci alquran ni wa daru zahira al ismi wa batinahu loolu mooy ñaari xeeti sikk yi ñuy wax ñaari xeeti jàngoro yi ñuy wax ñaari xeeti caay-caay yi ñuy wax nii ظاهر الاسم وباطنه موي خيتي جانغور ييغا yi nga xam ne dafa fés ak yi nga xam ne dafa nëbb ci biir yi nëbb nag sëñ bi leeral nañu ne amma radailu allati qad batanat xeeti jàngoro yooyu nga xam ne dafay nëbb di bóof ci xol jaam yi ay sikk lay doon yoo xam ni mooy sikki bakkan yi sëñ bi leeral nañu itam lor ji nga xam ne moo ci ne wax nañu ne yuxsha ala man fiihi kaanat jaafima walam yatub lillahi suul xaatima lor ji ci ne li tax mu doy waar li tax mu ñàkk solo li tax mu doy waar dëgg-dëgg mooy kim nekk ci moom moom yooyu jàngoro faw day am mujj gu ñaaw mën naa bañ sax deewaale ak ngëm moo tax sëñ bi teg ci ne aadana arrahmaanu minha fi zaman wa charri cheytaanin wa kulli di fitan yal na yàlla musal ci xeeti jàngoro yi ndax moom da lay yóbbe ci doo deewaale ngëm wala mu yóbbu la ci mujj gu ñaaw sëñ bi da ko misaal ci misaaluha wahiya aqaaribu maa alxayaati wahiya aqaaribu maa alxayaati munqalibaatun aqiba almamaati mooy xeeti jàngoro yooyu moo xam muy rëy wala kañaan wala soxor wala xeet yooyu nga xam ne dañ ko wax léegi insha allah boo faatoo ñooy nekk ay jaar ak i jiit ci sa bàmmeel bu ci gënoon a rëy moom njàngoro yooyu bu ci gënoon a am doole bu fekkee da nga sëg rëy moo ëppoon sa kiñaan masalan rëy gi jaar lay doon quoi jàngoro ji nga xam ne nag dafa néew doole mel ne yow li nga sa iñaan bëriwut wala li nga iñaan nit bëriwut waa ñoom iñaan gi day soppaliku kit nek sa bàmmeel di mat ak di fet ba kérok sa di tax motax ñu doy wax ñom jangoro yi motax señ bi wax ne mom mo gëna sax tar jangoro yi fess wahya min wahya min zahiratin kaanat ashad li kawniha nafsa abad kama tinabu nahyi kana afdala min iktisaabi al amri fi ma nuqila jàngoroy xol yi ñoo gëna bon fuuf jangoro yi nga xamne ak xeeti bakkar yi nga xamne mom la cër yi def ndax yi cër yi def nit ñi dañ koy gis ci yow nit ki bu fekkee dafay naan sàngara wala muy def lo yalla ay nit ñi dañ ko ci mere diko modu diko xol ko yo xamni dana tax mu torox fi seen kanam duñ ko jox yenn cër yi xam loolu dafa fees na waaye ki nga xam nag xeeti jàngoro yi dafa nekk ci xorom moom kenn du ko gis moom rek moo koy xam moo tax mu gën a doy waar moom jàngoro yi biir yi ñaareel ba itam xeeti jàngoro yi ñuy waxtaane muy yu xol yi dafa gën a dëppoog bakkan dafa gën a neex ci bakkan sëñ bi wax itam ne wax na àtteem ci lislaam mooy dafa wax ne fa listigaadu bi dawaiha abad min baadi maarifatiha fardan yuad mooy farata la ci jàmm bépp bépp jàmm mu taxaw ci saafara jàngoro yi jàngoro xol yi moom farata la ci jàmm yépp wa hiya min aadami ma abdun bihi raama iqtiraaba rabbihi fantabihi lépp looy wuta jege sa borom tabaraka wa taala saafara jàngoro yi moo ko gën nee na mooy li gën ci li ngay def ngir ngir jege jege ngir sàkkoo jege sa borom tabaraka wa mu mel ni boo nga laaj ko tey nan lañuy ñuy xàmmee jàngoro yi nan lañ koy xamee ab laaj la nan jàngoro yi ni mi ngi ci noonu mu wax nu ne wastafidan irfanaha ya saaxi bi soxbatil masayixi nu saaxi soo bëggee xam jàngoro yi gis ko ci sa bopp nee na ni nga koy xàmmee mooy boo ko bëggee xam dëgg-dëgg da dangay da ngay dem seet sëriñ si nga xam ne dañoo laa te di ay sëriñ bu wér nga ànd ak ñoom ñoom waxtu wu ne sikk yi nekk ci sa biir dañ la ci yee di la ci laabire di tax di taxaw itam ci saafara ko di génn ak génn ko ci aw bi musaaxabatal asdiqaa yi wala nga am xarit yu baax yu jub te tegu ci asiratul mustaqim ñooñu boo ànd ak ñoom seenu mbaax ak kawe gi la gën a kawe ci li ñu def dana tax nga xam ci yow sikk ak li nga manqué ak li nga xam ne boo matul ci yow te bu da ko jéem a saafara awil muxaalatati wal aadaay nekk noonu say noon mooy ñi nga xam ne dañ laa bañ wala boog bëgguñu la wala nga jàpp ne ñoom say noon lañ ñooñu lañuy wax ci yow nga di ko déglu ndax ab noonu day gëstu sikki kam noonu li ci ëpp sëñ bi itam leeral nu ne bala ñu laa teqaleel xeeti jàngoro yooyu li muy njëkk li mu njëkk def mooy danaa dafa danoo leeral ni jàngoro yépp boo leen boolee duñ génn ñetti xeet yi am na dañuy dellu ñoom ñëpp ci ñetti xeet yi ñu waaj wax bi ci njëkk mooy li mu wax ne bakkanu doomu yàlla da ko binde mu bañ ak topp nit ki ak jaamu yàlla day mett ci bakkanam day gis koo xam ni day mën a def lu baax waaye di daw ci mbedd yi wala di def yeneen yoo xam ni moo gën a metti sax jaamu yàlla fi ne moo leen di gën a nekk ci ak jaamu yàlla jaamu yàlla bakkanu doomu aadama ko bëggul ab nooflaay da ko gënal moom bakkanu doomu moo tax boo boo seetloo bakkan bi dafa am xeeti jàngoro yoo xam ni bu nekkee ci yow lim la yóbbee mooy dangay bañ ak jaamu yàlla bañ ak topp yàlla bëgg ab nooflaay te loolu boo daa dàqonte ak ak nekk bi nga nekk di jaamu suñu borom tabaraka wa taala te xam nga ni ab jaam li ko war mooy def la ko sangam ab sangam digal rek su dee yàlla dimbalee nag nga tàmbalee topp yàlla di jaamu yàlla am na xeeti jàngoro yoo xam ni lim lay yóbbee mooy day rax ci biir jëf moom xeeti jàngoro yooyu lu mel ne ngistal masalan te loolu dañ koy jàppe ak bokkaale mooy jëf ji danga sa rax leneen lu dul ngir yàlla kese te loolu bu amee day doon sikk soo xam ni day feeñ ci ngëm gi nga gëm suñu borom tabaraka wa taala soo muccee nag ci jëf ji baax nga xam ne benn sikk nekku ci boobaa am na xeeti jàngoro yoo xam ne daal di ñëw foofa itam mooy li ma sa bopp ak nawloo na jëf ji nga yooyu yépp dara baaxu ci yooyu nag nan la ñuy fexe ba mucc ci mooy xeet sikk yooyu moom lañuy ñuy waaj a waxtaane léegi yooyu nag ba tey sikk yooyu ak jàngoro yooyu mooy gàllankoor yi nga xam ne ñoo taxaw ci kanam jaam bi ngir bëgg du dellu ca borom tabaraka wa taala suñ borom dana wax ne fa firru ilallahi daw leen wut si suñ wut si ma ngir daw wuti yàlla nag bu doon lu yomb ñëpp man a mën a noo waaye dafa am ay gàllankoor yoo xam ne ñoo taxaw ci kanam jaam gàllankoor yooyu nag mooy sikk yi ak jàngoro yii ñuy wax ak gàkk yii ñuy wax ak xeeti caay-caay yi nga xam ne moom la ñuy wax mooy yi fees ak yi nëbb moo tax suñ wax ne walasta taxtawi lwusula lil jalil bi geyri qatci l aqabaati ya nabi bala ngaa mën a àgg ca sa borom tabaraka wa taala àgg ci ngërëmul yàlla subhanahu wa taala dangaa jéggi gàllankoor yi dangaa jéggi bunt yi ñu wax ni muy pakk yi nga xam ne ñoo nekk ci kanam jaam bi dañ ko jéggi doo ko mën a ci ngërëmul suñu borom tabaraka taala batay tey bi ñëk nañu léral bi mu daataa dugg ci tékkalé xéti jàngoro yi ak bu ne la koy safara léral nañu ñom jàngoro yoy yépp boko bëggé safara nan ngay def moy dafa wax né summa dawaawu jumlatan huwa ar-ruju' ila ilahina taala bil khushu' kama rujuuka li rabbil kalbi yakunu awla min anai darbi mooy soo bëggee mucc ci xeeti sikk yi yépp nag li ci gën a gaaw mooy nga dellu ci sa borom tabaraka wa taala diis ko ko yalwaan ko ko torox fi kanamam ñaan ko mu setal la seet ci yow moo dem xeeti sikk yooyu ni nga xam ne ab xaj maa ngi jéglu ci kàddu gi bu la songoon nga nekk di xeex ak moom am na lu gën a gaaw lool mooy boroom borom kalbu bi boroom dawkat boobu nga ñaan ko mu téye dawkatam boobu moo gën a gaaw nee na nga nekk di songoog moom di xeexal moom bu ko defee boo songoog moom mën na laa xusi wala mu matt la wala mu gaañ la wala mu dagg la te loolu lépp waa mën na la ci bañ a fekk motax tax bi wax ne kama rujuuka li rabbil kalbi yakun awla min ala darbi bakkan bi nak sa bakkanu bop bi ak sikki ci ne yep yalla mo la bind moom la def ci yow sikki yep ci moko dogal ci yow kon bo delo ci mom mi mom lepp nak ne ko dindil ma mbolam sikki yoy te taxawuma bañ ma bayyi te safaral ba sama jàngoro yep yépp mo gëna gën a gaaw moo tax bi wax ne loolu moy safara ci gëna gaaw ci xeetu jàngoro moy delu ci sa borom tabaraka taala am na ay waxtu yoo xam ni suñu borom tabaraka wa taala du ca delloo ñaan lu koy waay ñaan rek mu jox la ko lu mel ne njël wa bil asxaari hum yastaxfiruuna ak lu mel ne ajjuma am na fa waxtu boo xam ne yonente bi nee na yàlla ci delloo ñaanoo ñaan am na bërëb yoo xam ne itam ku fa toog loo ñaan yàlla fekk na ci bokk na ci bërëb bii nu ne nga xam ne ci wax ju gàtt ju neex a dégg rek xam ngeen ne yonente bi moo wax ne قبر بوجس بين مريك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار لأن قبر بوجس بين مريك در تدري أجنعي ولا مريك أم بخت بخت سواري كنا خمنا نكني برب بيجا خنا مدام نه جم جيجا خنا مي سانغو غاني باه فوفا كن عمر سكني أب أب در لا تدري أجنعي te aljana yalla ci mom wax ci alcorane lahum ma yashauna fiha kufa dug lo moo tax bërëb yooyu nga xam ne mooy bërëb yi gaa yu baax bërëb bi ndongu ñaan la yooyu yëpp nag boo bëggee mucc ci xeet sikk yi bu dafa yàlla yóbboo na nga ko na nga am ful la ci ñaan yàlla mu teqali la ak mboolem jàngoro yi nga xam ne moo nekk ci yow ak sikk yi nekk ci yow ak xeeti caay-caay yi nga xam ne moo nëbbu ci sa biir sëñ bi wax ne am na yeneen nit yoo xam ne dana ko dana ko saafara bokk na ci mooy ko wa minhu sidqul mar'i fil mujahada bil ju'i mooy nit ki itam farlu ci jihaad ak bakkanam bañ a topp sa bakkan rek lu mu la sant nga fekk ko ca lépp lu sa bakkan bëgg ci xeeti bànneex yi nga topp ko ci neen loolu boo ko defee danga nga kon faw itam nit ki bu bëggee mucc ci xeeti sikk yi ñuy wax dana jihaad ak bakkanam ci di ko xiifal bakkan lenn rek moo ko mën a tax a nooy muy xiifal ko boo ko deew wax di ko jéem a xupp ci yàlla du tax mu dellu gannaaw mukk moom bakkan boo ko dee xupp ci sëñ bi du tax mu dellu gannaaw mukk ak waxi sëñ bi ak digal yooyu tax ko tax a dellu gannaaw leen rek moo ko mën a tax a nooy sëñ Tuubaa nee mooy ab xiif nga xiifal moom loo bëgg ci moom di ko am bakkan ba ca topp mooy wa manuna nafsa min alladaati wa shahawaati kullama awqaati mooy bànneexi bakkan yi nag nga muñ ko te di ko tere sa bakkan di ko ko aaye xam ngeen ni bakkan moom amul yemukaay te fi mu ne nun lu bare ba dañ ko tuumal seetaane doomu aadama lu nu dal ñu ne seetaane ko def fekk seetaane masalan bari na lo xam ni du ko def seetaane du taxaw ne la faw nga def nangam mom du def lool ko señ wax ci bir masari seetaan da lay wax ne la bur julli so ne na julli mu ne lay kon julli gawal ko soo ko ta gawal mu ne legi taril ci kaw ndax gaa ñi dégg li ngay wax soo nanguut a def loolu mu ne léegi nag kon yow julli nga julli kenn mësuta julli gu ne bëgg nga yëg sa bopp moom noonu lay doxee bakkan nag moo naan la ta faw tey nga xéwloo xéwal sàngam mënta ñàkk lijjanti ko ko mën a am taxaw ne faw nga def loolu bakkan mooy mooy def loolu xeeti bànneex yooyu nga xam ne nag ci lay bëgg a dugal ak bëgg nga topp sa bànneex yooyu la sëñ wax ne faw nag nga taxaw ci tere ko yoy du dugg moom ba ci top mooy bi xam ni ibadat gàddoo nak ak gàll sa bokk xeeti jaamu yalla yu bare bare bare bom mo ci top ci yi mën safara jangoro yi génne ko setal la raxas la ba nga seet wicc li ko man sëñ wax ni bokku na ca nga gallo ay jaamu yalla yu bare bare moy del julli waxtu juroom yi te bul ca yam bo julle ba nopi na nga fa tok jéggulu sa borom te tuddu yalla loo man xeet tudd yàlla yépp doo ci man nga di ko def te bañ saa yamit di jàng alquran di jàng ci xaside sëñ bi te itam di naafila di siyaare gaa ñu baax di toog ak ñoom ak yeneen ak yeneen ak yeneen loo mën ci lu baax rek waxtu wu ne fexal ba nekk ci lu baax loolu boo koy def yaa ngi raxas sa bopp yaa ngi seppi ci sa xol ak ci sa jëmmu xeeti sikk yi ñuy wax na leen bokk na ci li sëñ bi wax ne kada soxbatu ahlil xayri mooy ñi ngay àndal di ñu baax yonente bi alayhi salaatu wasalaam daana wax ni nit ku ne moom kami àndal rek day bokkal jikko nit ki bu ngeen dee ànd moom su la gënee baax dalay wàll jikko ni ki nga xam ne xeet bu ma ne soj ak yeneen xeet wéradi yi nga xam ne dañ koy wàllante ci kaw nooyu rek bon ñaari nooy lim nooy yow boo ko nooyoo wéradi gi dugg ci yow loolu la xeeti jikko yi ak lu baax loolu lañ koy wàllante itam motax sëñ bi ne bok na ci li mëna gëna safara jàngoro yi ñuy waxtane di ànd ak gañu bax wa akduna min atyabil halal la shubhatin aw riban aw ashkal sëñ bi wax ne bok na ci itam li gëna mëna safara jàngoro yi ñuy waxtane moy di lek lu lew fexe ba li ngay lek lew xam nga yaronte bi alayhi salatu wasalaam dañoo wax ni am na jenn waay joo xam ni dafa nekk ca àll ba di jaamu yàlla sax ca waxtu bu ne mu dëkk yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi di toroxlu ca na ko yàlla bëggee waaye ne yàlla moom du nangu mukk ak ñaanam du ko wuyu mukk annaa yustajaabu la kenn du ko wuyu li tax yàlla du ko wuyu mooy la muy lekk dafa xaram li muy sol dafa xaram motax yalla du nangu ak ñaan manam képp ko xamni yaangi lek lu haram yalla du nangu mukk sa ñaan bo gisee sëriñ bi ni ak mag ñim yaroon tanu nek ci àll bi difa fa lu lew difa jaamu yalla subhanahu wa taala moy lek lu lew day tax li ngay jëf yalla nangu ko day tax do ñaan yalla nangu سيدنا سعد بن ابي وقاص دا فا مسا لاج يونس بي عليه الصلاه والسلام نيكو مان داما بغ ليپ لوما نيان يالا ديف سيد بي نيكو يونس بي عليه الصلاه والسلام نيكو يا سعد اطب مطعمك تكون مستجاب الدعوه دا غاي فخا با لي غاي ليك دي لو سوكو دي ديف دي لو نيان يالا نونغو gis ngeen ci alquran yalla dafa wax yoonte yi ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan maanaam da ngeen di lekk lu dew yéen yonente yi mooy tax ngeen mën a jëf-jëf ju baax moo tax sëñ bi tekki ne yaa saaxi kul ma chita tafal mislahu yi xaalilan man chita tëxlu shaklahu nee na yow sama waa ji yow murit bi lu la neex mën nga koo lekk waaye li nga lekk rek moom ngay jëf soo dee lekk lu xaram lu xaram ngay jëf soo dee lekk lu lënt lu lënt ngay jëf soo dee lekk lu ñu sib lu ñu sib rek ngay jëf nee na itam ku la neex man ngaa ànd ak moom waaye koo àndal rek moom ngay bokkal ci moo tax sëñ bi wax ne loolu dara gënu ko gaaw kon ñaar yooyu muy lekk lu lew ak ànd ak gaa ñu baax ni ci saafara la saafaraal la mboolem jàngoro yi mu teg te itam bi ko mujj bi ci mujj ci yooyu mooy wa min dawaiha al firaaru min jamii madannati zambi mbooleem bërëb yi nga xam ne dañ faa njort ak mooy yàlla ak luy yóbbe nit bàkkaar na nga ko moytu soo bëggee mucc da ngay fexe ba bërëb ya ñuy defe lu bon bul fa jaar nee na lii yi ma wax ni mooy lii saafara mbooleem xeeti sikk yu fés yi ak yu nëbb yi kon nag ñu dugg ci xeeti jàngur yi nga xam ne moo nëbb te mooy faslun fi rasaa'ili bi ñu waxee bunt bi dama jàpp ne sax bunt bu mujj boobu rek moo tax ñuy wax mooy xeeti jàngoro yi bu ci ne sëñ bi wax na ko ba pare wax la koy saafara ba ca njëkk mooy al kibru muy rëy sëñ bi dafa wax ne fal kibru a'zamu radaili jamia li annahu yaqdaxu fi diini lmutiu wa gayruhu min albawaaqi in xasal fa innahu yujibu qadxan fi lamal Sëñ Tuubaa dafa ne rëy mooy ki gën a bon mooy li gën a bon ci xeeti sikk yooyu ñuy wax moo ci gën a rëy rëy moo ci gën a mag gën cee yées moom rëy ndax nee rëy day yàq sa diine lay yàq ak sa pas yeneen sikk yee ñu wax jëf ji lay yàq sa jëf lay yàq boo ngistalee jëf ja moo yàq masalan waaye rëy moom sa pas-pas la yàq xam ngeen ne suñ borom ci alquraanul karim dafa wax ne sa asrifu an ayaatiya alladina yatakabbaruuna fi l ard bi gayri l xaq maanaam ñi nga xam ne dañoo rëy yàlla du leen du leen tawféexal ñu gis dëkk walla buñ ko gisee duñ ko topp moo tax rëy yàlla sax dafa àgg ci wax ne ñi ko def yàlla da leen a bañ bëggu leen inna allaha innahu wala inna allaha laa yuhibbul mustakbirin da leen a bëggul moom yàlla yàlla musal ci ku yàlla bañ yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ne lan yadxulal jannata man kaana fi qalbihi misqaalu darratin min min min al kibri koo xam ne lu toll ne lii dee ci wex wala lu toll ne fepp suuf wala lu toll ne aw sànqale mi ngi ci sa xol ci rëy doo dugg àjjana mukk moom àjjana doo fa dugg loolu foofu na ngay ngay xame li tax sëriñ bu mag bi nun waa këram ñëpp ak jullit ñëpp mu yar mu yar ña ko toppoon ñëpp ci ak woyof ak woyof murid dëgg-dëgg du rëy du gis boppam du yëg dara ci boppam sëñ bay jaxate da ngay gis muy wax naan fee jant bay fenke ak fee muy xamee soxe ji yilif ko ak laxasu yelwaane laa yemale ñaar yu ko ci man kenn yilif adduna sépp ak di laxasu yelwaane ci mbedd yi noonu leen sëñ bi noonu leen sëñ bi moo tax sëñ bi wax ne sikk yooyu bi ci jëkk gën cee yées mooy rëy leeral nañu itam ay melow boobu rëy ndax rëy dafa bari ay melow sëñ bi wax ne niñ koy xàmmee boobu rëy mooy xeeti am na kersa kersa ñaari xeeti kersa la am na kersa bu baax waaye am na kersa goo xam ne ci rëy day dugg kersa goo xam ne da lay yóbbe ci rëy a def ndigalul yàlla wala rëy a dégg dëgg wala rëy a ànd ak ñenn nit ñi wala xeeb aw nit xeeti kersa yooyu ci rëy lay dugg moo tax sëñ bi wax ne wa minhu duuna raybin alxaya an altabiiya kada alixfaau lilxaqi mithlu raddihi wa lisdiraadi ay insaanin daci takabura bokk na ci lii wane ne lii wane ak rëy mooy bañ a nangu dëgg ak nëbbu dëgg ak ñu wax la dëgg doo ko nangu yooyu yëpp day tegtale ak rëy ak xeeb benn doomu aadama rek nit ki bu ko defee bu mu sikk ne ak rëy mi ngi ci xorom yàlla yàlla musal ci loolu yónnente bi alayhi salaatu wasalaam nag masees na ko laaj ne ko am na ku ko mas wax ne ko nun kat suñuy yére dañuy bëgg muy set wecc di doon yére yu rafet daal yi ñuy solit noonu dañuy bëgg mu rafet lool ndax loolu ci rëy la bokk yónnente bi ne leen déedéet inna allaha jamilun yuhibbul jamaala يالا دفا رافت تي بغ رافت ولكن الكبر بطر الحق وغمط وغمط الناس اغري موي خيب نيت ني اك باغا نغ دغ لول لول مو اغري نون لاكو سيت بي فري يتام تي جوهر نفس قل رفع نفس مع كتم الحق مع تعظم وغمط الخلق موي باغا نغ دغ اك يكتي سا بوك اك di xeb nit ñi ak japp ne ya gën nit ñi likoy dindi nak ci doom adam señ bi leral na ko moy safara ci jangoro la yoy nonu ay jangoro lañ yo xamni kiko am dafa wéradi dañ ko wara fajj xam ngeen ne ñaari xeeti jangoro moom doom adam ñaar ko seq yaram wi nga yor ni muy li nit ñi gis ci yow yaram mo du dara lu may ak kees bu ëmb ruux gi nga xamni mo lek sa bir yaram wii nii day wér day wéradi léeg-léeg mu wéradi ba lim gën a bëgg moom lay bañ fi ne nit ki bu sibburoo rek xeeti xéewal yi nga xam ne moom la gën a bëgg su ko xeeñee rek muy waaj a moom lay gën a bañ loolu bu amee tekkiwul ne xéewal gi moo moo am jafe-jafe waaye yow yaa wéradi moo tax dafa am docteur yoo xam ni yaram yi la ñuy faj dañ leen fay dañ fay yóbbu yaram bi ñu bindal ko ay garab yoo xam ne bu ko naanee wala bu jëfandikoo ko nañ ko ko waxee dana saafara jàngoroon jooju ci yaram waaye ruux gi itam noonu la mel ni ni yaram bi la mel moom it day wér day wéradi ruux li gën a bëgg ci àdduna wala ci lépp mooy lu jege yàlla ak lu ak ak yàlla ci boppam ak lu ko jege rek loolu la gën a bëgg bu gisee ñuy bëgg Sëñ Tuubaa di bëgg gaa ñu baax ñi di bëgg Rasuulullaah te dañ ci am sago loolu sunu ruux yi ñoo ñoo sopp yàlla ak la ko jege moo tax ruux loolu na gën a bëgg boo gisee nag ruux gi bañ ak jaamu yàlla wala yàlla wala wala lu jege yàlla bul sikki ne ruux ga dafa wéradi dañ ko war a faj yi tax nag ruux feebar ak wéradi mooy xeeti jàngoro yi moo fay dajaloo bari fa ba ëpp moo tax nag jàngoro yooyu yëpp bu ci ne dafa am garab bu koy faj nim amé docteur yi faj yaram yi noonu la amee docteur yi fajar wax yi te mooy sëriñ su baax seen yi seen yitte moo doon saafara doomu aadama ku ñew ci ñëw ku ñew ci ñom ñu xol jangoro ji nga amé xol la koy faj ñu tektal la ko bo ci jaaree wër direct rëy nak serigne bi dafa wax ne mom boko bëggé safara ci sa bop génné ko ci sa bop yi ma lay bëgg wax da ko jàpp mooy dawaa علم بأن ما حوى تكوينه من البرايا في استواء فلست يا أخي تفوق أحدا لجهل خاتمة أمرك غدا بشي جك موي داغا ورا خامني لب لي يالا بند ñoo yem di ay mbindeef yu suñ borom moom moo yow da nga war kenn ndax fi ne li nga nekk ak lu mu baax baax xamoo fan ngay mujj ëllëg man ngaa dem bay waaj a faatu jàdd dem ci weneen yoon wu bokkut ak yoonu bu baax ma nga nekkoon dara fàmmi la walla sa pas-pas woyof wala dara yàq sa pas-pas loolu lépp mën naa ndax mucc ko li fekk yaa ngi dund rek mucc ko moo tax faw boo xamee loolu doo yëg ne yaa gën kenn doo xeeb kenn loolu mooy saafara si jëkk mooy nga xam ne yow ak mboolem bi nekk yépp yéen a yemoo di jaamu yàlla te sab xol ak xol bi def yëpp ñu ngi ci loxo su suñu borom tabaraka wa taala te itam waxtu wu ne mën naa wëlbati sa xol jëme la si geneen wet gu bokkut ak bu baax gi nga nekkoon moo tax wóoroon naa ko nga yëg ne yow këwoo kenn ci lenn la ca topp mooy summa waidullahi fi nasril kitaab li mutakabbirin shadidun bil adab nga xam ni itam yàlla da ca tëkkoo moom moom rëy tëkku gu metti wax ne inna alladina yastakbiruuna an ibadati sa yadxuluuna jahannama daaxirina mooy ñi rëy faw dinaa leen dugal sawara te yàlla wax yan yàlla mosal ci googu tëkku lu mel ne suñu borom door ko tax na nga xam ne moom bu la ñëpp meree ci moom ngay làqatu ji su su la tëkkoo tëkku gu mel nii war nga tiit te itam sëñ bi tekki ne wa huwa alladi ahlaka iblis allain naudu minhuma bi rabbina almuin te itam rëy mooy li alagoon iblis iblis li ko alagoon du dara lu may rëy iblis wax nañ ne jaamu na yàlla lu ëpp juróom-ñaar fukki junni at ci yenn borom xam-xam yi li wax fu ne jaamu na fa yàlla wax ne sax adduna si mënoo teg sa baaraam foo foo te te doo daj fu iblis mas a sujjóotal suñu borom tabaraka wa taala te benn bis la ko yàlla jox lenn ndigal mu làkk ngir rëy bu ak yëg boppam bu mu yëgoon ne moo gën maanaam sayyidna Aadama mi ko yàlla waxoon ne ko na nga ko sujjóotal te mooy na nga ko jox cër màggal ko mu mu làkk loolee yàlla daal di koy génne ci yërmaaneem ngir saw ko yëg gëm yëgoon boppam ci waxtu woowee ci benn bërëb rek te lu ne mas na ko def ci lu baax ci li ñu wax kon sëñ bi wax ni loolu boo ko xamee itam dana tax nga moytu lool rëy ak di ko jéem a xeex ba génn ko sa bopp sëñ bi wax ci itam leneen mooy qad kunta qablu nutfatan madiratan wa sirta ba'du xaamilan adirata summa tasiru jiifatan qadiratan muntinatan qabixatan xaqiratan mooy yow boo xoolee xalaat ci sa bopp doo jéem a yëg dara ci sa bopp su la wóoree ne njëkk ngay ñëw nga xalaat la nga bàyyi ko lu dara lu am solo mbir la moo xam ni fu mas a taq rek ñu jàppe ko sobe raxasi bi nga fi nekkee ci àdduna itam waxtu wu ne yaa ngi yor ci sa biir sobe soo xam ni yàlla la defal sutura soo xam ni waxtu maanaam kenn bëgg ko jege ñetteel ba mooy bis boo faatoo itam bu la yàlla defal tawfeex diir su néew rek sa sa jëm kenn ko mën a jege soo xamee loolu xalaat ci bu wér a wér doo yëg sa bopp doo jàpp ne yaa gën kenn te loo mën a am ci lu baax nga gis ko bi teg ci ne antum fii ma utliqa wa huwa min tiini turaabi xuliqa te itam ngeen xam ne ñëpp seen maam jenn la muy aadama alayhi salaam moom maam ñëpp te moom ci suuf la ko yàlla bind ci ban ak suuf sëñ wax ne loolu lépp nag ku ko xam bàyyi ko xel di ci xalaat doo jàpp ne yaa gën kenn xam nga nit ñi mën nañ laa teg fu ne day am jëmm yoo xam ne yàlla ci bopp mooy def ci ñoom la ko am ñoo xam ne yàlla leen tànnal boppam leen boppam li mu wax ci alquran ba mu ne ulaayika humul muttaquuna dajaa dégg ne lahum maa yoo xam ne yàlla leen tànnal boppam defal leen la ko neex ci ñoom di jëflanteeg ñoom ci kaw lahum maa yashaawuna mooy lu leen neex yàlla fekk leen ci inda rabbihim te loolu mu teg ko ci coobareem mooy yaxtasu bi rahmatihi man yashaa ña ko yàlla def nag loolee tànn googee ak xéewal yooyu ak nit ñooñu nga xam ne yàlla leen jox ay cër ñooñu itam nit ñi mën nañ koo xam ba fonk leen waaye ñoom duñ ko yëg duñ ko yëg mukk ci seen bopp mooy nit ñi mën laa teg fu ne ngir jot ci yow ak mbaax ak jege ko jege yàlla waaye yow warut a tax nga gis ko mukk ci sa bopp saa yoo ko gisee rek dellu nga ginnaaw ay jéego yu bare bare bare bare bare moo tax sikk soosu mooy li jëkk loolu itam mooy ay saafaraam xam ngeen ni rëy bu nekkee ci nit ki ci la yeneen sikk yu bari di juddoo itam lu mel ne mer moo gën a ñooy ànd xaste ak jëwante ak soxar ak kiñaan ak ngistal ak ndéggital ak bëgg daraja ak bëgg wàccuwaay ak ñàkk maanu yooyu yëpp ñoo gërëy ñu ànd fu rëy nekk rek bu yàggee yooyu sikk fekk ko moo tax sëñ bi wax ne moom mooy bi ci gën a doy waar da nga fexe ba tàqali ko moom ba ca topp mooy al ushi mooy ndaw jëf sëñ bi wax ne moom maylun ila nafsi maa stidaami laha li nisyaani kadal anaami loolu wax ca mu naw nga sudóor ba mu koy xamle moom naw jëf dafa wax ne mooy maanaam nga yëg ne def nga dara dara ci lu baax saa yooyu jëfee jëf ak lum rëy rëy nga yëg ci sa xol ne def nga dara defal nga yàlla dara wala defal nga waa ju baax ji nga liggéeyal dara yow yaa ngi daal di naw tàmbali naw sa jëf te boo nawee sa jëf rek mboolem jëf ji nga jëfoon yëpp yàqu na danaa ko wax léegi sëñ bi wax na ko naw jëf mooy li nga jaamu yàlla gi nga def nga gis ko ba pare mu rëy ci yow nga di ko ndamoo boole ci loolu moo ci yees moom سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بي سنبرا وخينة والذين يوتون ما آتوا وقلوبهم وجهة أنهم إلى ربهم راجعون بي الله واتي آية وصعنا آية صدق الله نكو خنا ني الله جبل وخفوخ دي موي نيغا خامني دانيي ديف لو بون با نوبي seen xel dalut ñu yaakaar na ñoo xam ne ñi ngi ci lu bon di ko rëccu ci seen xol ñoom la yàlla wax foofu mu ne ko déedéet walladina yuutuuna ma aataw wa waji la mooy ñi nga xam ne lu baax la ñuy def di jëf-jëf yu baax yu rëy di fanaanee julli guddi gi di def jaamu yàlla yoo xam ne dañ ko ànd ak teewal bu mat sëkk ak pëstéeful pas-pas ba noppi seen xol jàq tiit ñu yëg ne lii ñuy def ni yelloowul yelloowul ak mag mag bi suñu borom subhanahu wa taala ñu ànd tiitaange xam ne li ñuy def ni matul mu mett ci seen xol naqaru xol na ànd ak moom ci jaamu yàlla yi ñuy def ndax xam nañ ne lii yelloowul yelloowut ak mag bi suñu borom tabaraka ñu tiit moo tax yàlla di leen tagg ci alxuraan walladina yuutuuna maa aataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun motax eh. ya, ya, ya, nga gis sun borom bo julle julli jurom da nga julli jurom julli farata ak jaamu yalla la bok julle ba nopi day lay digal yonente bi dafa digle nga tok fi nga tok bala nga def dara nga wax astaghfirullah alazim ñett yoon nga nga jéggulu yalla ñett yoon te da nga jaamu yalla jaamu yalla bu mag muy julli fi ne ñi ñi nga xamne dañu fanane taxaw guddigi diko di yalla naafi la digal ca mujj guddiga ñu fay jéggulu yalla wal mustaghfirina bil asxaab da leen tagg wax sant leen ñuy ñuy yàlla ci bu ñu defee guddi gépp ñu naafila ko ba guddi gi waaj jeex ñu toog foofu di jéggalu yàlla moo ne xamal ne li nga def ci jaam yàlla waroo ko gis danga war a am kersa ndax yow wala boog noonu suñu classe gii nii boo jullee ba noppi kersa nga war a am ndax li nga def nii julli gi li nga ci xalaat ci mbirum adduna fi ne mooy ëpp li nga xalaat ci mbirum yàlla subhanahu wa taala sa xel mi mënoo ko tëkk mën nga tëkk sa cër yi ci julli gi waaye sa xel mi fu ne lay dem moo tax ker sa war a àndal ci jaamu yàlla ko waxuma la nag di ko naw moo tax sëñ bi wax ne boo bëggee mucc nag ci jàngoro jooju muy gis sa jëf ak naw sa jëf saafara yi mooy yi ma lay waaj wax amma dawaul ujbi fi ma nuqila أن يعلم العابد أن العمل ليس له لكونه مدللا وأنه يمكن أن لا يقبل بوبغي موتش تي جانغروي نوجف اك آو نينا موي داغي جف جيف جفني جيف ني تي kàttanam suñu borom rek ci nga jëfee sa jëf ji biré xam nga loolu mas na ko misaal ci yu bare bare bari waaye dama ko dama bëgg misaal ci misaal bu gën a fi ne bu nelaw jotee guddi bu jotee loolu def lu may tëdd gëmm say bët di xaar xéewalu nelaw ne suut nga yëg ne nekkoo fi boo demee ba noppalu ba noppalu yëg ne dikkaat fi ne yóbbuwoo sa bopp indiwaatoo sa bopp itam xamoo loolu jëf yi nga jëf yëpp noonu la xaw a demee bi nga taxawee di di julli mboolem kattan gi nga am ba mën a julli def lu kooy def sujjóot yi di wax baat yi fi ne wax masalan da ngay bëgg a wax mbir mi yëg ne yaa ngi koy wax waaye fi ne boo xalaatee li nga xam ne yow wax ji du yaa ko sàkk du yaa ko jëf dëgg dëgg da koy jëfandikoo rek xéewal yooyu yëpp lépp mboolem li ngay jëf noonu la xaw a moo tax boo taxawee am xéwalu taxaw julli julli gu mat sëkk da war a sant yàlla ci mi la yàlla mi la kàttanam ci kattanam googee mu la jox nga mën a matal julli gi ni ko yàlla bëggee loolu da war a sant yàlla xam ne jëf ci yàlla ci bopp moo la baax taw feexal la ko man-man du sa kattanu te itam nee na ñaareel bi mooy boo bëggee mucc ci naw jëf bokk na ci li nga war xam mooy li nga jëf fi ne man naa am yàlla nanguwu li nga julli yëpp fi ne amoo benn garantie ci ne yàlla nangu na ko man naa am li nga mas a jëf lépp yàlla nanguwu ci dara loolu nag boo ko xamee doo tala naw sa jëf wa annahu ma zaada sa daa taqsiri fiihi wa lam yaji bi kan naqiri fi jambi ma alayhi min xaqil jalil bal lam yaji bi darratin wala fatin ba ci topp mooy waxtu da ngaa war a yëg ne yow gàttañu la nga war a def dëgg dëgg sax defe ko yàlla dalaa bind moom la nga war ko jaamu jaamu boo xam ne war na am app fi ne waroo noppal da nga def moom la ab jaam nag sëñ te noppal moo tax sëñ bi wax ne yow li nga war a def ci sa diggante sa borom bu doon téeméer fi ne benn ba sax defe ko soo xamee loolu nag dootal a naw li nga defagul fi ne ba ca topp mooy li wax ne wa anna ma wa na man ala siwallaahi i'tamad anhu taxallaa wa tawaa yawman képp koo xam ne sukkandiku sukkandiku ko ci sa jëf bis penc kenn du la tee loolu Sëñ maanaam fi mu ne loo mën a jëf ak lu mu rëy rëy ci lu baax yow bul ko naw bul ko gis na nga sukkandiku ci yërmande yàlla yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa mas a wax ne képp ku yàlla lañ bët say mbir yowmal xiyaam ne dana la dugal sawar ñu ne ko wa xatta anta wala wala ant aw kama qiila lahu alayhi salaatu wasalaam ñu ne ko ba ci yow yow yonente bi alayhi salaatu wasalaam bu dee yàlla lañ bëgg sa mbir mu ne leen ba ci man mii illa an yataxammadani llahu bi rahmatihi yërmaande yàlla rek laa yaakaar waaye bu lañ bëgg sama mbir dana ma dugal àjjana man noo xisal xisaaba udiba wax na ne am na beneen xadis boo xam ne ñu ngi koy askan ci moom wax ne maak Isa bu sax bu yàlla nañ bëtee suñu ngir dana dana dugal sa war yërmaande yàlla rek lañ fa yaakaar moo tax sëñ bi wax fii ne bul sukkandiku mukk ci jëf yi ngay jëf nanga sukkandiku ci yaakaar yàlla ak yërmaande waaye li ngay jëf li fi ne mën la yóbbu fenn ndax buñ ko lëñ bëtee rek doo dem sëñ bi teg ci itam ne wa rubbama ibadatin kathira wala ibadatan kathira qad afsadatha lahdatul xaqira maanaam fi mu ne li gën a doy waar mooy nit ki mën naa jaamu yàlla juróom ñett fukki at benn seconde wala benn saa mu wax ci benn baat wala mu jël jëf ci jenn jëf wala mu toog ci xelam jàpp ci xalaat ci yenn xalaat yu tax yàlla yàq wala bañ a nongooti mboo dem la mas jëf ci dundam rubama ibadatun kathira قد افسدها لحظه بن سا رك مانا ياك مول نيك مسا جيف تي لو باخ موتاخ سيغ بني لولو بوكو خامي دو تانا داو سا جيف لا ينبغي للعبد دعوى عظمه قربته لربه دي آه، النعمه موتاخ سيغ واخني اب جام وروتا جامو يالا با ناو كو جاب ني رينا فاسل بورو تبارك وتعالى لو جامو جامو رك ko war a xeeb mel na ni may doxal xaw naa yéex xam naa bu waxtu yi kii rek ñu wax ma bu soobee yàlla bi ci topp mooy assamaa suñ bi teg ci ne jàngoro yooyu bokk na ci ndéggtal ndéggtal mooy li sëñ bi firi na ko leeral na ko xaqiqatu sumaati fi qawli radi ixbaaru saayin saalixin li garadi yunsabu lid dunya ka madxin wa ajab wa hiya uxtun lirriya fi nasab dafa wax ne ndéggtal bokk na ci jàngoro yooyu ak sikk yooyu sëñ bi wax ne itam mooy nga jëf-jëf ju baax nga jëf-jëf ju baax te ginnaaw ba nga di ko wax ngir bëgg nit ñi xam ne yaa jëf jëf ji ngir daray àdduna nga wax ko ngir bëgg ku la ci tagg wala ko xam ne lii ngay def loolu la ñuy wax suma as suma mooy ndéggatal mooy jëf ci nga jëf ci lu baax nga di ko wax ngir bëgg nit ñi xam ko ba dina ci tagg ak dina ci yéemu loolu sikk la yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax nañ ne daana wax ni Cheikh Mouhamad Yadali mu nekk ci xaatima ne wax nañ ne yowmal xiyaam képp ko xam ne danga nga daa def loolu yi mooy da nga daa def lu baax di ko wax ngir nit ñi naw na ci ak tàgg na ci ak gis li ngay def yowmal xiyaam nee na say jëf dañ koy yëkkati ba ñépp gis ko suñu borom wax xamal mbooloo mépp ne leen kii kat lim doon jëf nii lépp taxuma nit ñi la bëggoon ñu gis ko te gis nañ lam ci doon nag am na ko ci kon moom jëfam jëpp dara baaxu ci sëñ bi wax na itam ndéggtal as sumaa ak riyaa ñoom ñaar ay mbokk lañ maanaam ndéggtal ak ngistal benn lañ sorewul ngistal dafa aju ci li ñuy gis ndéggtal aju ci li ñuy dégg ci nopp ngistal kon ak ak ak ak ak ñaar yooyu benn lañ mooy jëf daal nga def ko bëgg nit ñi gis ko moo xam danga cay ñoddi aw yiw wala am loo ca bëgg wala nga cay jaj lor am loo cay bañ bëgg nit ñi maanaam bañ laa wax yenn wax yi ndax ngay jëf yenn jëf yi wala nga bëgg nit ñi màggal la ñett yooyu lu ci tax ngay jëf lenn rek bul sikk ne yaa ngi def ngistal wala yaa ngi def néegital loolu nag ñaar yooyu nag sikk lañ yoo xam ne si bi yaatal la ci ci téere bi wax na ci lu bare bare bare dama koy gàttal rek ci wax ni dafa am wuute bu ci am mooy borom xam-xam yi fiq yi dañ cee wuute ak borom xam-xam yi tasawuf borom xam-xam yi fiq yi ñoom dañ koy firee ku mel ne imaamul Qaraafi dafa wax ne iqaaul qurbati li qasdi naas mooy jëf ji nga def ko ngir jublu nit ñi gis ko wala nit ñi dégg ko ñaar yooyu ci am rek ngistal nga wala yaa ngi def suma ndéggtal borom xam-xam tasawuf yi nag wax ne ndax bu fekkee da ngaa topp borom fiq yi moom masalan tey lu ak jaamu yàlla du ci dugg masalan ak col waa ngistal du ci dugg ba tey jaamu yàlla gi itam su fekkee ne nit ñi taxuñ nga koy def leneen a tax donte mbirum adduna la meneen itam du tax dégg nga maam mu dugg ci ngistal masalan boo doon aji te fekk aj gi nga aj jaay nga fa bëgg ak jënd maanaam nga ne ab ab ab kuy yaxantu bëgg boo fa demee di fa jaay marchandise bi nga yor boo demee ajaale loolu boo toppee borom xam-xam yi fiq yi loolu du doon ngistal day dugg ci ak jaamu yàlla te loolu mooy li nga xam ne moom la borom xam-xam yu bare bari maase ñi nga xam ne itam ay julit wala ay murit yu ndaw suñu classe bi foofu lañ ne itam yooyu yëpp du dugg ci ngistal dëgg-dëgg gaa yu baax yi nag dafa yooyu yëpp dañ ko jàpp ngistal maanaam dañ ko dugal ci ngistal mooy mooy ni imam al-Ghazali moom wax ne iradatu nafci dunya sawaun min allaahi aw min annaas bi amali al axira mooy jëf ji su fekkee ne dàkk nga ci leneen lu may yàlla rek ngistal lay tudd ñoom borom xam-xam yi tasawuf yi gaa yu baax dëgg-dëgg loolu lay jàpp ne sax mooy su fekkee da ngay aji te bëgg caa yàqal na waale loolu dañuy jàpp ne ngir maanaam loolu yàlla taxul yow da ngay jaayi sa marchandise waaye aj taxul a jóg moo bëgg yàlla kese kese tax loolu nag sëñ bi yaatal na ca mel na ne waxtu yi moo nu xaw a dab waaye damay àgg rek wax ci ne sëñ bi foofu dafa ànd ak borom xam-xam te suuf yi ak gaa yu baax yi dëgg-dëgg lañ jàpp nga xam nga ne sëñ Tuubaa mbir mu ne la ci gën a rëy gën jaa kawe moom la ñuy tànn moom la ñuy tànn ci ne bi mu wax julli da wax ne salaatuna fi awwalil awqaati wa afdal wa alam bi anna afdal taaati salaatuna fi awwalil awqaati parce que day bëgg mu lii wala tu axiru salaata la wax bu leen ko yeexe def leen ko ci njëlbeenu waxtu bi mi nga ko muy dem boo dem yu baax yëpp boo ko seetloo loolu lañ ci tànnal la gën a kawe rek moo tax fii itam loolu lañ tànnal li nga xam ne moo gën a kawe ci pas-pas moom lañ tànnal mooy dafa wax ne wa man yakun lil xalqi dartifaati fi saayihi fa bir yaayin aati saa yoo bàyyee xel leneen lu ma yàlla ci biir jëf ji rek bul sikk ne ngistal nga def ak donte yow kese yàlla nga xam ne nekkul ci biir nit loolu maa ngi jéggu mel ne waxtu wi dem na xam na damay gàttal foofu rek wax ni daal kon sikk yooyu yu baree baree bari la ngis tal sëñ bi wax na ne lu mat moytu la bokk na ci lim tudde ngis mooy jëf jëf joo xam ni maanaam maanaam bëgg rek bëgg ca dara lu bokkut ak ngërëmul yàlla subhanahu wa taala ak yàlla dakk ca leneen lu ma yàlla loolu suñ bi ne ko jàpp ngir sàmm li koy saafara itam suñ wax na ci lu bare bare bare mooy la ca gën a am solo rek mooy nga xam ne nit ñi mënuñu laa jariñ moo tax bu leen bàyyi xel ci li ngay jëf bàyyi ci xel suñu borom tabaraka wa taala kese mën na maa jaar kon rek ci turu sikk yi ci des ci lu gàtt rek ngir ne waxtu wi jeex na bi ci toppoon mooy lu mel ne kiñaan ak coxar rah dara lu bokkut ak li ci li ngay def dara masam kii jaay waru ci rah ci la mi jaay dara lu ci bokkut yooyu yëpp señ bi wax na ko wax na itam la koy safara mi ngi ci biir téere bi ku ci dem dina ko fu fek bok na ci itam di def ngir ak di rafetal sa zahir ak sa biti bàyyi sa biir bañ yitté wo sa xol lolou señ bi wax na itam sik la te ku ne war naa xeexal mom nek non itam bëgg fété kaw mboolem sen maas japp na yaa ñep lu itam sik la sëñ bi wax na ci itam wax la ko safa ak it bare xemmem def waxtu ne ngay say yaakaar ak say mebet di bari ak sa yitte di lo dundé rek ci aduna bañ yitte wo sa dundu xol yooyu yëpp sëñ bi wax na sik la wax na itam ci sik yi lu melne di magal borom alal ngir alal jam yor kese loolu sik la ak it bëgg aw takk ak gis sa bopp ak ñaaw jot ak it jëf ju baax ju ne nga di ko xaare ëllëg mooy li ñuy di wax ne dinaa jëf saa yu ma màggatee wala waxtu sàgg bi dinaa tuub waxtu ne ngay xaare mbir mu ne nga di ko xaare ëllëg loolu it sikk la suñ wax itam ne ko dee sikk yi mooy mooy bañ a def tawakkul mooy nit ki dafa war a boole fàggu lu lew ak boole ko wëkkir lu itam suñu borom tabaaraka wa taala mooy ngay def sabab yi te xam ne li sabab yi jur yàlla moo koy bind moo koy dogal na mu ko neexee lu mu dogalee mu neex la ñaareel ba ba ca topp mooy mébét yu bari suñ wax ne loolu sikk la nekk noonu itam toog loxoy neen bañ a def dara loolu sikk la des na ko saafara di bëgg ab nooflaay itam ci la ci la bokk ak itam yàlla bàyyi gim bàyyi ak sa sago tegu la benn nattu nga jàpp ne yow loolu fi mu ne sax mbaax a ko waral wala sa jëf ci rafet loolu it ba tey naagu bu mel noonu sëñ bi da koy aaye wax ne sikk la itam lu mel ne itam wóolu pexam sa borom loolu lépp ci sikki da bokk ak di gis sa sikki sa sikki morom sikki nit ñi te gis sa sikki bopp yooyu yëpp wax na ne ci la ak bëgg àdduna ak lu mel ne li ngay def ci lu baax nga di ci ñax nit ñi mooy di leen waxaat ak di leen ca maanaam bëgg ñu leen cee takk ak di ko gis ak mer ak yàkkamti yooyu yëpp ay sikk yoo xam ne sëñ bi wax na ko ci biir Masaalikul Jinaan wax itam la ko saafara ñoo ngi jégalu bu baax a baax mel ne waxtu yi moo ko du maye wasalaamaaleykum wa rahmatullah